imaam Macky Sall rey imaam Ndao imaam Ndao di dund loo ni kenn kenn nettaliwu ko ko moo waxal boppam jaxam ndax dégg nga kenn ku si naan wala ñu wax ma waxanteeg Macky Sall mais kenn defu ko ñëpp dañu toog seetaan ko ba ba ni mu génn àddina ñu xañ ay njabootam yow tey nga toog ibbiwaat kees gi Sénégal moom Sénégal ñoom ñun Sénégal moom mooy dëkk boo xamante ni man na doo mën a wax ay doomaram te parce da da du ñëpp parce que lu bees rek ñu fàtte. lii dafa lii dafa nekk loo xamante ni dafa rëy imaam imaam la Macky Sall rey imaam imaam xañ ko ay njabootam koo xamante ni rëyoo nit sàccoo defoo dara jamono ji ñuy wax benn imaam boo xamante ni ñu rey daggati ka te imaam li mu représenté si kaw si kaw suuf voilà mais Sénégal faana ñu imaam xam nga kan la ñuy jaamu doomu aadama muy sëriñ yi nga xam toog muy dox dem nañ toll foo xamante ni dèjà am na benn xale boo xamante ni dem taal otoam ndax lan marché marché Touba ba nga xam ne dañ ko taal ah loolu nag lan ñu am koo xamante ni seen sëriñ moom moo joxe ndigal yow yow mu joxe ndigal te pourtant taali boobu nga dem kañ ko xam kañ ko wërsëgam ta otaam tey ji bu buñ tuddoon wax si yow lu ñaaw day xeex ngir yow day ñëw joxe addiyee kii pour yow tey nga xëy joxe ndigal ñoom ñu am si fierté man li man man li ma si métti mooy seen ndigal yi ñuy jëfee man ni ñoom dañ si am yàlla xam nga lañ ngeen si am jaajëf kër doomu aadama ba leen sant ko ngeen si am te non seulement non seulement sëriñ bi dina ko loo yow ma xiyam ak ni mu ko def yéen itam taaliba yi di ngeen ko loo ma xiyam balaa ngeen balaa ngeen a jéggi siraat bu nu naxante de nan waxante dëgg Sénégal dafa toll foo xam ne dafa toll gis nga Macky li mu def nii c'est pas la première fois parce que xam nañ daal dafa dafa campagne bi jub si na mais yàggal na si kër sëriñ yi di leen jënd mais fi mu dafa gën a tar. dafa gën a tar moo tax vidéo bi nga def sànq nii ma mu ay 4 ak ay million ma ne que lii nag moom la joxe kër kër laayeen bi laayeen bi nangu li la jox mbay si mbay si nangu li la jox ñeseen bi nangu waaye kii dafa ni déedéet man sama turaay bàmmeel laa xool ndaxte Macky Sall mi nga xam xale bu tuuti la du du du après indépendant du ma jënd du ma jënd ñu doon gore ba tey ñu ngi gore imam ñu gore ba tey ñu ngi gore xaalis moy lan xaalis mooy lan ngeen gis li nu Macky Sall def si dëkk bi Macky Sall wàcc ay ay gendarme ak militaire di rey doomu aadama yi ngeen toog fi ngeen toog dëkk bi fi mu toll nii dafa tàng jër xol yi dafa métti ñëpp a ngi jooy Azura mii barke Demba Ndiaye avant ñu koy jëli si guddi la doon def live TikTok seetaan naa ko loolu lan demee leen ko jàpp dara jotu ka dara jotu ka dara jotu ka lu daan jàpp ah. dama xam man Sénégal gi man fan la nu nekk laa xam te man gis nga dañ naan le seize mais gis nga ba avant le seize avant le seize mu ne nanu le douze le treize na ñëpp a dem parce que fi mu toll nii ñoom ah, Moussa Fall ñam na ka neex na ndax xam nañu carrément balaa la seize militaire yëpp dina ak gendarme dina leen wàcc ñu koy ñu ñu baarewaat ñu baarewaat këram ñu baarewaat këram loolu moo doon koy allah kulli doon koy baarewaat. man nag Ousmane Sonko am na loo xam boo ko def dañ naan ragal la mais déedéet mais presque moom Sonko bu mënoon dem foo xamante ni wala yaakaar ni duñ ko say yaakaar bu nu xëyee boy këram boy këram di ko xaar fekk moom nekku sa këram fekk nekkul këram fekk nekkul këram. mu am feneen foo xam ne dina fa dem mu xëyee am feneen foo xamante ni dina ànd ak ay avocat dem parce que fi ñu toll nii dëkk bi dafa tàng jër seen xol yi dafa jeex nanu jug te bu nu jugaatee wala nga si mag du nu bàyyi. du bu nu parce que lii xeexu badar la lii ku si dee sa bakken àjjana nga jëm waaye bala kenn di si dee nekk Macky Sall na si dëkk ba pare moom mi nga xam ne turam turam bi nga xam ne kenn xamul bu tuuru lu mu doon tuuru doomu raam la yore muy Macky Sall la moom mi yàq Sénégal ah Sénégal ñun kenn xamatul lan lan la fi mu toll nii fi ne nii kenn du wax ku wax ñu tëj la ku wax ñu rey la ku wax ñu tëj la fi nekk nii boo fa toogee ci ab ab ab sëriñ euh, kaay ñu fettul sa kër rey la dóor nga bëgg a ko si taalibe ñooy fekk dóor la ba nga bëgg a dee Sénégal ngay dem ñu dem si bàmmeeli ëllëg ñu ñaan ëllëg ñu ñaan la tëdd ad ku génn àddina dañuy toog doo ko la ñaan seen soxla nan waxante dëgg kooku ngay dem di sukk ëllëg nga ñaan ko fi mu tëdd waaye da ngay dem si bàmmeel bi di ñaan kooku di ñaan ku tëdd si sa soxla ñun ban Sénégal la ñu nekk xam nga ñu dañ naan lu ñu def yàlla ndaxte ñun ñun ya moo tax yàlla jox lu Macky Sall bu doomaraam parce que sunu bokkaale ba parce que dañu jël dañu jël doomu aadama moo xam ne yàlla moo ko sàkk ñu dem di ko jàmm ni ko yow yaay yàlla dañoo ñu ñaan yàlla mais dañuy dem si bàmmeel di ñaan seen soxla moo tax yàlla dina mbugal moo tax yàlla jox na Macky yàlla yàlla jox na Macky Sall moo tax yàlla jox na Macky Sall lan moo xamante dëgg il faut nit ñi yeewu du question saaga parce que dëgg la li ñuy wax nii dëgg la parce que dañu war a jaamu yàlla roy Seydina Muhammad alayhi salaatu alayhi salaatu wasalaam mais defuñu ko ay doomu aadama la dem di roy di leen sukkal di leen di leen defal di leen ràmma di leen def lu nekk bu nu wàccoo su jël seen wàccu naan ka bu nu sawoon sax mu jël seen saw naan ka avec ça lan leen manqué respect manqué wu leen respect manqué wu leen respect parce que Sénégal dafa nekk la xam fi mu toll nii dafa lu métti di fi xew dafa métti fi mu toll nii encore faal nanu jug nanu jug xeex nu jug xeex ndaxte fii xeex rek moo ko fii jëlee Sidi Lamine waxoon naka Macky Sall du ay kart moo ko fii jëlee. Ousmane Sonko bu bokk Macky Sall élection du am Sénégal loolu la xamul woon ba tey du am Sénégal loolu naka def si boppam naka tënee si boppam dëkk bi guerre lay doo ñu war a dund dañuy dund ñu war a dee dee kese la amul leneen c'est tout c'est tout nanu préparé protège masque yi lu mu ko jaral ne nu mu ko jaral nan ko jaral bi yoon bu du su bu du su terrain seen kër yi dañuy dem nan dana seen kër yi nervi buñ si jàpp nag buñ la rendulee ba taal la pënd sotti la essence foog moo am ak policier parce que yéen ak militaire yéen comme yéen da ngeen da ngeen ñàkk fayda Macky Sall jël seen liggéey di ko salteel jël ay nervi mënu leen jàkkaarloo nervi rey rey seen day nervi buñ si jàpp nan ka taal pënd sotti ka essence Mali gënuñu nu Burkina Faso gënuñu nu ñun ñëpp benn benn benn lañu